ñu ngi waxtaan ak bépp taalibe Baay Ñas bu dégg wolof informé wu ba xam li xew ci réew mi yëgit ne benn jaamab yàlla bu tudd Adji Sarr def na conférence de presse leen ko mën a tuddee point de presse wala lu ñu enregistré waaye lu mën a xew wax na ci vidéo nit ñi seetaan ko man Cheikh Ahmed Cissé nag du maa war a wax ca lam doon wax dëgg la wala du dëgg li tax ma di ci yëkkati kàddu mooy turi Baye Niass mi mu ci tudd Baye Niass nag di mbindeef moo xam ne ku ñëpp bokk la ku ne mën na caa cëru ba doyal te buñ ko sedd woon Baye Niass dafay des te ku ne jot sa wàll du man it maa am légitimité pour wane ne moom taalibi la wala du taalibi ndax taalibe baay bàyyee ko xam ak ku doon baay wala ka doon taalibe li ma bëgg a wax rekk mooy neen xam ne bàyyu mbindeef yi képp ku ko doon say doom dina am ñu dem safara ndax doomi aadama yi ñooy dem safara say doom dina am ñu dem aljanna ndax doomi aadama yi ñooy dem aljanna say doom dina am ay ràmbaajkat dina am ay nafeq man jàpp naa ne ci ñooñ laa bokk kon li may wax taalibe yi mooy buñ am naqar ci ne ka doon màndi waatee na Baay Ñas buñ am naqar ca sàcc waatee na buñ am naqar ci jigéen ju tuumaal góor waatee na Baay Ñas neen xam ne lama waxoon jëmmi yi Niass mooy marchandise bi gën a cher te am valeur tey moo tax dinga gis ku ubbi dara ne Baye te daraay Baye Niass nekku ci xol gëm naa ne man ci ñooñu laa bokk kon su Adji Sarr toogee waat ci Baye neen xam ne Baye Niass ay nu ñu mel waaye wóor na ma ne ku sa islaam leer nga ragal yàlla ragal fen ragal wax lu dul dëgg ragal sos nga jóge fa sa tariqa leer ngay lazim suba ngoon di wasifa boole ci sa yeneen awraat ba sa xol nooy ba nga xam ne dara yaa duna safu la lu ma yàlla nga door a ñëw nag xam dëgg-dëgg yàlla xam ko ci jëmm ji xam ko ci melo yi xam ko ci tur yi dëgg-dëgg lépp loo waatee bàyyi nit ki lay déglu dana xam ne dëgg la dëgg-dëgg yow yaa tax ñu ne taalibe Baay kon gàcce nekku ci ñun en tant que Baay ne jigéen ju yëkkati tuuma teg ko ci kaw góor ñoom ñaar ñépp di doomi Sénégal yëkkati na coow taalibe Baay la gàcce nekkul ci loolu de gàcce nekkul ci ne euh, suñ sëriñ la aji saar nit ku nekk amul benn sëriñ bu la defar ci sens bi ma bëgg a waxee sëriñ daf la mottali yàlla daf lay tànn nga bokk ci ñu texe mu dénk la waajur yu baax ñu yar la defar la nga door a dem ci sëriñ mu yéegal la fii may waxee moo tax ma waxee nii waaye su fekkee ne danga ñëw rek ne sëriñ du defar te commencé woo fi ma commencé dëgg-dëgg sëriñ dana defar wax ak mbooloo moo jafe kon kàddu yi ma ci wax lay dëgg ak lu dul dëgg yàlla ak ñam ko xamal ñoo ko xam bokkuma ci ñum xamal luy dëgg ci kaw Sonko ak Adji Sarr li ma ñor rek mooy turi bàyyi Niass bi moo bëgg ngeen xam ne waatee Baye Niass kum neex nga def ko ndax Baye Niass Baye Niass am yàlla la mooy bàyyi mbindeef yi mooy sirrul xaqi mooy naasiril xaq waaye xam ngeen ne taalibe bàyyi bu ñam ci lu baay indi te muy dëgg ci yow dinga am beneen melokaan bu uteeg Cheikh Ahmed Cissé bu ma am su ma jëlee exemple si suma bopp di nga dégg lu ma waxul kon maa ngi dalal xeli taalibe yi ne lii du lu aay lii du lu garaaw ka ko def la concerné waaye Baye Niass dund na ba génn àdduna amelut boromam benn àq amelul moroomam benn àq li sëriñ Aliou Cissé radiyallahu anhu waxoon ne bàyyi mooy koo xam ne amul kenn kum jëriñut mu ne boo demee ba ne bàyyi ñes jëriñut ma lorut la ñàkka lor gam la ñàkka lor mooy jëriñ gim la jëriñ jëm jooju nag ñu ngi ndokkeel bépp taalibe ñi demoon Nigéria ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel am na koo xam ne mu ngi toogoon fii Dakar te mu ngi woon Nigéria yéen dégg ngeen fi ma waxee ñu ngi ndokkeel ñëpp ci bés bu rëy boobule Eh, dama gis benn poste waa ji ne Baye moo wax ne Nigéria ñoo ma bëgg naar yee ma xam maa bëgg Sénégal kon ñu ngi sant yàlla ci nim ñu bëggee waaye dëgg dëgg eh, poste bi dafa neex rek waaye nar gànnaar yi gën a ñoo xam Baye Cheikh Omar Touré fana la gënuñ koo xam Serigne Mbaye Niass fana fana la gënuñ koo xam Seydi Aliou la gënuñ koo xam Cheikh Ousmane Ndiaye fana fana la kon bay Niass mooy koo xam ne kum neex nga euh, euh, xam xàqam jëfee ko dund ko dundal ko texe rek moo lay ñeel ku yàlla lor nga dëngee ak xam di fen di ko waatee di sos di ko waatee di def lu la neex di ko waatee su boobaa Baye Niass mooy doon Baye Niass rek ndax man awma légitimité nangul nit taalibeem wala génnee ko awma légitimité xam kuy taalibe Baay yàlla defalul ma tawféex boobu wuur na ma daal ne taalibe Baay bu Baay pare ci yow da ngay doon royukaay ci sa wax ak si sa jëf yàlla na ñu ci yàlla boole yàlla bu ñu ooteem Baay mi ump yàlla buñ bañ ku bëgg Baay Ñas yàlla neen bokk ci ñum tànnal boppam bi himmati Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu maa ngi ñaanal imaam Cheikh yàlla na yàlla guddal fanam te mu wér fu mu gestu rek gis ma ci boorom